waaw Maître du Ndoye moom anamu lan mooy xalaatam ci euh, référendum bi ñun nag dem nañu gëstu ji jëm wër na ko ci réew bi ba gis ko ba tey jii mi ngi nii ak euh, ñu ci suñu euh, plateau ñu fekk fii ci bureau ngir mu wax ñu lan mooy xalaatam ci référendum boobu Maître Doudou Ndoye maa ngi nuyu.

olof nee na da ngay dellu fi nga jóge ah mbokk nga lëlu làqu toog xalaat ba xam fi nga jëm man jaaxle rek ak euh, ñàkk xam fu ma jëm euh, moo tax ma euh, toog di déglu ba xam lii nga xam ne moom la ñu tegal suma kanam ba mu wér ma sama diggante suma boroom ne xam naa fan ñu jëme walla xam naa lii tax ma war a ekkati sama kàddu. jaxle boobu lan moo ko waral est-ce que c'est parce que li ñu soumettre ngir ñu voté ko dafa nekk loo xam ne baaxul ci réew mi wala lan. Euh, euh, ngir mi si mbind yi la. Euh, ngir bëgguma si sax sori sox jooju fa fi doore mooy fi njiitu réew mi wax ne day ñaan ñu wàññi mandaam mm-hmm.